yow mi doon wër terrain wala sax ay terrain man yéeg si nga fii ci mboo Mbodiène ci Petite Côte bi am nañ fi surtout 3 hectares li ci gën a neex mooy dagg nañ ko ay parcelles de 300 mètres carrés ba am ci plus de 40 parcelles avec papier délibération personne physique promoteur immobilier wala sax ngeen bokk liggéey bëgg def coopérative d'habitat daw si leen gaaw un site très bien placé à 400 mètres de la route Joal Mbour et 800 mètres de Akon City tout droit asalaamaaleykum mbokk internet suivre bir lamine TV bëgg nañ len siyaar nañ len bu baakha baax mercredi le 11 octobre ni ñewat ak yeen ci benen numéro journal di Mbapat comme niñ ko done defé ci saison 2022 2023 saison 2023 2024 commencé na wala tijji na lañuy wax ñu profito di ñaanal ñepp jamm di di wax euh, ak euh, yal na saison 2023 2024 dàq saison yi passé yëpp suñu borom sàmmal ñu boppam aaral ñu boppam bon tey nag dañ leen di indi li nga xamante ne moom mooy résultat ak programme résultat ci làmb yi nga xaman jot na fee jaar ak programme làmb yi ci week-end yi ñuy jublu euh, dañuy njëkkee pro euh, ci résultat yi fi nga xamante ne moom mooy Kaolack Kaolack le 28 septembre la doon tëgg lendemain Gammo Kaolack Touba Kouta Buur Saalum moom moo ko jël jël ko ci kaw rajaxe rajaxe bu kër Fodé poilisé yi foofa ca Kaolack woos jërtan bu mbuur moom moo ko jël jël ko ci kaw xalil xalil bu jonwaar buñ jógee Kaolack le 5 octobre bi euh, faajaal amoon na mbapat mbapat bu rëy ceeb bu Joal moom moo ko jël jël ko ci kaw booy ordi bu kam yaag ceeb bu Joal moom moo ko jël jël ko ci kaw booy ordi poilise yi foofu ca faajaal mbin jaab mbin jaab bu caajaay moom moo ko jël jël ko ci kaw jàmme jilanka bu Fimela waaye le 8 le 8 octobre lamb amoon na fi nga xamante ne moom mooy dakaar arène Adrien Senghor foofu ca Adrien Senghor Pape Diop bu baari ndondol moom moo ko jël jël ko ci kaw taalibe seex bu taalibe seex bu géréw loolu lañ jotoon am ci ay résultat ñu daal di jàll ci li nga xamante ne moom mooy programme yi programme yi nii la tëddee. dimanche le quinze octobre 2023 lamb ju rëy am na fi nga xamante ne moom mooy terrain gaal gi la structure Manga Production moo ñoo fa woote tegal mbëri 3 millions de francs CFA foofee ca Dakar terrain gaal gi e, bu jógee Dakar di 14 quinze 16 lamb am na fi nga xamante ne moom mooy Fimela commune Fimela hmm, moom mooy tëgg làmb nag nous avons mbëri 3 millions mise de 3 millions à Fimla le 14 15 16 octobre 2023 à Fimla, mis 3 millions de francs CFA nous avons jógee Fimela le 28 wala le 20 le 27 le 27 ak le 28 nous bu rëy le na fi nga xamante ne moom mooy Mbelongout Mbelongout nag mu ngi nekk diggante Ndiosmone ak lul Sessène wala Ndiosmone ak Ngoye. mbéyum ñu ngi fay tegal mbeuri ñaari nak ak 100000 francs 27 ak 28 octobre buñ joggé mbeen mbéyum dañu dem fi nga xamantene mom moy kaolak nak tout droit kaolak le 4 novembre 2023 sal Ngari production mo fa woote tegal mbeuri 1 million 500 ben fan ñaari drapeau 1 million 500 mille francs le 4 novembre 2023 ñu leen di jaajëfal lu baax. di kontaan bu baax ci yéen